ñoom ñoo lay toog fi nga xam te ne mooy coowal Sénégal diaspora nuyu naa la. waaw maa ngi lay bëggee di la siyaare Salim vraiment ah di siyaar waa coowlu senegal yëpp di leen bëggee di rafet lu seen liggéey ci la diaspora ak fépp ci àdduna bi ñu ngi leen di bàyyi xel maa ngi lay nuyu bu baax di xaar say question mhm. Diaz dal la gëj gis nag xaw ma foo nekkoon nee na ma Diaz. Mhm. daatu ko almadi xam nga ceeñ ci. Diaz <laughs> mais Diaz gars yi li ñuy wax da nga gëj a def ay sotti lu waral nekk damay nekk fii su ma newul fii damay nekk faja lu bari ci kër famille beeg yooyu comprendre et puis damay nekk ci yeneen job gérer studio yeeg yooyu euh, di am artistes yoo xam dama leen di jàppale ci seen seen milieu comprendre nga mm-hmm. parfois nag ma xaw a génn réew mi tuuti changer air ñëwaat quoi. Mm-hmm. Dia euh, gannaaw ba nu nuyu ku ne xam ne nag li nga xam te mooy show bii rek yow gis nañ à ngay def sorte di wax ci nga xamante ni mooy artistes yi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal waaye nekk ci li nga xamante ni mooy international bi alors d' abord dañ koy njëkkee ci ki nga xamante ni mooy Pape Diouf ah mu joué barki dem fële nga xamante ni mooy ca France daal koy def bi sa ah Pape Diouf ñu gis à chaque fois muy def ay tournée internationale mais mu ngi réussite ah jaar appréciation ci loolu waaw appréciation ba ci am rek mooy que Pape Diouf dafa doon artiste ba nga xamante ne fi mu la ba fi mu toll nii vraiment yagna def yu mel nonou mention spéciale ci ci liggéeyam comprendre nga et puis tolotul fa nga xamantene sax pap Diouf dañ naan ay gise fermé ñak gise fermé parce que artiste day toll fa nga xamantene ci sa carrière euh, da ngay dépasser ay ki fessel na fi feesalul fi pap Diouf musicien la comprendre nga dafa am kat am musicien musicien bimu don nak moy que même bu gisoon deux personnes wala trois personnes de jouer donte demewul nonou mu ngi fessel fu nek mais dafa yag ci musique ak tamit tarbiyu musique ba pare jàng ko ci ay école ba pare am ci xam-xam am fu mu jaar lu mel ni ay Lemzo Diamono rek école la ah Prince Art beneen affaire la ba mu toll fii mu toll kon Pape Diouf lu mu def ci musique rek war na ko. Hmm, day mel ne loolu mooy secret parce que ku ne gis na ni Pape Diouf ñi fi nekk noonu mooy ay Fallou Dieng. Hmm. ay ay Salam Diallo donte ñu ngi mais Pape Diouf gën a gis tey jii ci mag ñi. muy muy muy prouver loo xam te tey yombul ci aajam am ñoo xam dañ koy prouver lan mooy secret voilà Pape Diouf nag léegi nag ñu bëri nag dañuy foofu di nga wax ni sax dafa dafa am solo parce que ñooñu la bokkal jamono ñooñu la bokkal génération mm-hmm. mais tey Pape Diouf génération bi mu fekk si bokkut tam ñoom génération nañ ñaan génération bi Pape Diouf fekk si ñu dem bay def li Pape Diouf di def buñ toll amee âge yi Pape Diouf am parce que Pape Diouf mën na leen a jur mu ngi leen di fekk si ci bi moo tax li li olof bi di wax rek yàgg bàyyiwul dara yàgg moo ko may xam-xam boobu mu am ba fu mu toll nii tey. expérience bi waaw bi mm-hmm. waaw. Mm-hmm. mais mais récemment dafa jógee ci li nga xamante ne moom mooy euh, biir Prince r mm-hmm. est-ce jàpp nga génn génnam biir Prince Art euh, njariñam mu ngi ci wala da jàpp ni moom mooy li gën ci li nga xam ne mooy waaw moment bi ngay génn ci benn label ba nga xam da nga fa nekk miin fa du doon li gën ci yow mais boo doxalee tuuti après day gën ci yow parce que da xam ne vraiment am nga possibilité nga xamante ne moment bi nga doon nekk ci biir euh, label boobu amoo ko woon. mooy société bo munti liggéeyee ci àddina bo fa nekkee boo fay jóg a dina am lu la manqué ñoom dina am lu leen manqué même yow du la arrange sa yoon parce que sa bunt yu bari day tëju mais Pape Diouf bi mu doxalee tuuti rek ba léegi nii da ngay comprendre que ne Pape Diouf fi ni ne nii ah loolu arrangé na ko parce que mu ngi génn di def tournée boppam sans label di demal boppam PDG groupe waaw ah, donc blocage dafa amoon ci li nga xam te ni moom mooy bi mu nekkee président parce que gis nañ tey mhm. euh, Pape Diouf doo toog benn weer te deful li nga xam te ni mooy tournée mhm. mais bu ko defee day réussir est-ce que tey nekkul woon blocage bi mu nekkee fële nga xam te ni moom mooy ah, mu doxaat mais Pape Diouf produit buy dox la ba pare moment bi mu bàyyee Prince Art boo xoolee di nga xam ne am na lu ci moom mais après lu muy gën a dem expérience am di gën a ñëw muy gën a comprendre et puis ñi ci gën a ginnaawam di gën a liggéey mu am benn bu xam yoon bi kon pour lu Pape pour mu dem du doon problème quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. mais gis nañ tamit ki nga xam te mooy Matar Diop suba teel mu koy épondé bari bari. Mm-hmm. ba récemment dinañ ñëw ci fi nga xam ne si ñu léegi tey euh, Pape Diouf. li mu réussir tey muy muy France bee mu doon joué tey def ko guichet fermé. ah tey lan la ko mën a apporter ci li nga xam te ne moom mooy carrière ak tey. waa xam nga problème bi cër la ko sénégalais yi war a a jox si tamit moo ngi loo xam te ne c'est pas donné à xam nga problème mu Sénégal moom mooy que fans moo bari mais melomaan bëriwul mais bu fekkee melomaan nga xam musique juste ko da ngay gunge musique yow mooy tey Pape Diouf buy tëgg da nga koy gunge waale buy tëgg nga gunge ko Sidi Diop buy tëgg nga gunge ko bu fekkee melomaan nga. bu fekkee fans nga nag da ngay choisir ci ñoom koy bëggal sa bopp wala comme koy àndal comprendre nga. Mm-hmm. mais ñun yàlla daf ñu dimbali ñu doon melomaan ñun faruñ fenn amul benn artiste bu ñuy dem naan ko yow lañ àndal mun nañ am ay waykat nag ci ñoom. mais non man duma ma pour am nekkuma problème mu faatu juste que dañuy jaawale ku dem di wane nit ki talent am ku dem di wane nit ki li mu nekkee ak ku far ku far mooy ku ñëw ñu signé la contrat wala ku ñëw ne man ci yow laa far man suma déggoo benn baat bu ma ne man ci diw far juste ko dama doon dem di influencer waali après ma dem di influencer Pape Diouf ñoom ñëpp suba Momo Dieng bu ma ubbilee buntam damay dem ci moom influencer ko damay dem soirée yëpp. donc am ma fenn contrat am ma fenn fu may far juste que sama liggéey moo may ma am droit dem fu ma neex il faut tamit ñuy nangu liberté man dama am liberté quoi man kenn du tënk ci dara dama am liberté. juste que nag bu fekkee nag yow da nga ma woo yow artiste bi ne ma bëgg naa ñu liggéeyee nii ak nii ak nii mun naa liggéey ak yow nek sa fan stop la di xërti xërti non non juste que damay dem pour pour am fa image pour woné woné sa image ci aduna bi comprendre nga pour woné tamit sénégalais yi nga xamanteni bëgg nañ xam am am soirée nit ñi mais fi Sénégal mo metti ku la gis ci soirée nit ñaar yoon wala ngay waxal nit ñaar yoon rek ñu da nga frag mo mais man amu fenn fu may far. mais lan nga ci gagné en retour bu fekke da nga leen jox ben influence. Hmm. da mo fa contrat aussi tamit que du nek de yow nek le grand père la ñoom ñoo ci gagné. wa ñom tay limay def mom ñom ñoo ci gagné lu bari parce que ñom lay woné ñom ñaay defal lepp mais xëj na yàlla mi nga xamante ne moo ma sàkke noonu may def loolu xëj na du ma seetaan ko yàlla mi ma sàkke noonu duma ma seetaan parce que ñu bëri ñu ngi seq ak man teraanga mm-hmm. mais fan nga gën am am am nekk waaw fépp fu ma dem fu ma nekk fu ma dem nekk fa à parce que Pape Diouf suma grand la Waly suma xarit la euh, Matar Diop suma nit la ñoom ñëpp fu ma fa nekk damay fu ma dem damay nekk à l'aise parce que dañuy xam ne kii nii xëj na showbiz moo am walla boo parfois ñuy wax ñu ute ay gis-gis mais musuma leen wax lu ñaaw waaw musuma teg nit taf ko wax ci moom lu ñaaw juste ko lu dul produit bi ngay génne laay dut sama baaraam wax ci li ma ciy wax. mais ñi naan nag tey da nga jël la sewaale tey nekkoon défenseur am ko waxal lu ci bëree bëri gis na ni tey loolu jaaj lu amatul sax mais da xaw a baissé wu ci loolu tey. waaw sax dama xaw a la sewaale de juste que mooy que parfois bi ngay dem maa ngi bi mu fay dem vraiment soirée tout le temps damay dem soirée ba léegi. mais bi ma fay bi ma fay dem gars yi lu mu doon wax dama farag waali ñu jékki-jékki gisatun ma gisatun ma may dem soirée ñu ne ma noonu da nga bàyyi waali Sénégal moo mel noonu comme li Youssou Ndour woyoon euh, boo yoree sa mbaam boo waree ñu ne war nga boo wàccee ñu ne wàcc nga boo ko woomatee ñu ne pourquoi muy woon mbaam mi te yéegul nga yéeg mbaam mi ni kii du kii du wàcc mbaam mi sonal na mbaam mi de Sénégal moo demee noonu mais juste que ñoom ñëpp ku ma ci xalaat ne tey damay dem sa soirée ngay dugg si dinaa taal sama téléphone wax li may wax ci samay làkk wala lu ma ti doon après ma posté ko pour àdduna bi yëpp gis ko xam ne artiste bi lii ak lii man juste musique Sénégal laa fi nekkal su ma sañoon waa li yéeg ci kaw Pape Diouf yéeg ci kaw keneen yéeg ci kaw comme ni leen di dégg ci àdduna bi loolu laa bëgg ko waaw mais man am fu may far wala fu may parparloo waay mais gëj na la gis Vogue aussi tamit xanaa ba ba nga dem xanaa. waaw waaw Vogue nag Vogue nag parfois ma dem parfois damay dem te kenn du ma gis parfois may dem parce que xam nga tamit dem dem dem fi gars yi eh, sinap sinapeur eh, yi nekk wala eh, influenceur yi nekk mën nañ la wone mais parfois damay ñëw dugg Vogue te kenn du ma gis ma ñëw baal li may baal dem sama yoon ah parfois damay def parfois damay dugg si ñëw jël image dem sama yoon mais parfois ma gëj fa tamit parce que du forcer chaque jour ma dem fa. alors léegi ñu ñëw ba tey ci Pape Diouf ah. danañ dellu ci loolu Pape Diouf tey li mu réussir tey. Mhm. fële nga xam te ne ci euh, France de culture fermée tey. Mhm. ban appréciation nga ci li ma ci am rek mooy que carré non bettu ma ji Pape Diouf bett ci lan Pape Diouf tey bokk na ci artistes yi nga xamante ne tukulóor yi moom leen ëpp lu ñuy baal si France waaw mhm. ah, waaw waaw Pape buy def événement France moom day day fees parce que et puis par préparation bi la et puis date bi mu koy jàpp la et puis xam nga parfois artistes yi dama koy wax tout le temps mooy que yow mi rek bo teggon France organiser ko ni nga war organiser sang siw day fess parce que l'essentiel bi ka euh da ngay xam moment bi nga koy organiser tay bitim rew dafa moment ba xam nit ñi dañuy nekk ci vacances lepp luñu gis ci animation dañ fay dem dafa am ba nga xamante moment nit ñi dañuy tënku seen liggéey duñ tal yooyu comprendre nga léegi bo xolé moment bi nga xamantene yow mën nga fa organiser programme ba am leen boko organiser da ngay réussir sa programme te Pape Diouf dépassé na Pape Diouf fi mu ne nii dafa dafa dafa bëri dafa bëri mbaxana yu muy wooyee nit ñi dañ koy xoole Youssou Ndour ñenn ñi di ko xoole roi di mbalax ñenn ñi di ko xoole mun a way ñenn ñi di ko xoole talaam loolu rek bu bés bu mu ci dem da koy réussir ko mmh. jàpp nga daal organisation bu baax rek moo waral tey Pape Diouf mën yi. waaw organisation bu baax bokk na ci et puis am talent bokk na ci et puis tamit am ay fans yu lay bëggee bokk na ci. Mmh. Mmh. alors ñu gis euh, récemment ay photo yoo xamante ni gis nañ ko mu affiché wu ci plateforme yi. Mhm. mu ànd ak Matar Diop suba teel ñu ne dafa signé ci benn structure. Mhm. donc la loolu bëggu naa ngeen ñu ci ay leeral parce que ñu ci bëree bari gis nañ photo mais xamuñu lan moo wundu signature yooyu tey ma bëggu nga indi ci ay leeral. waaw waaw xam nga signature yooyu. aw non label bi mu signé euh, structure bi mu signé moom mooy Belief Belief euh, c'est une structure ba nga xamante ne da lay dimbale boo génnee boo defee ay su ngi signé ñoom contrat. chaque mois nga génne benn single wala nga def album sans pas ci ci li ngay signé ñoom parce que signature yi ñoom ñoo ko xam euh, mais li ñu fa ëpp lu ñuy signé bokk na ci produit yi ngay génne et ñoom dañuy gunge artiste bi pas mal des artistes yu gunge ya nga xamante ne dem nañ ba am ay disque d'or comprendre nga euh, Blif mu ngi nekk benn structure ba nga xamante ne dëkk Europe yu bëri am na ko ñoom dañuy accueillir artistes yi di signé ak ñoom euh, ci seen seen seen i seen i seen yi ñuy génnee

jële la jële la bitim réew yóbbu la biir États-Unis jële la feneen ba àdduna bi yëpp di la ñoom noonu la joobe quoi mooy maanaam luy yokk sa musique ci beneen facette ci beneen continent bilif loolu mooy bilif quoi loolu mooy seen liggéey et puis am na fu mu nekk bëgg na egg feneen c'est juste que Pape Diouf dafa doon artiste ba nga ni foofu Sénégal bala ñoo wax parfois ñuy xam nit ki quoi personne Pape Diouf nit la ka nga xamante ne comme li gars fonk ni fonk ko Pape Diouf dafa jàppoon ne moom garaawul day dem rek way ñib si këram comprendre nga mais après nag lu muy gën dem fur et à mesure di comprendre que ne musique bi du fofu kese quoi ah. war nga mun a woy tey mel ni benn Youssou Ndour wala nga dépassé Youssou Ndour boo gëmee loolu tey fépp foo xalaat ne dina yokk sa sa visibilité da nga fay dem Mhm. Pape Diouf moom tey boo xoolee bokkul ci ñi nga xamante ne dafa dafa bëgg ay visibilité wala bëgg bëgg image doo gis rarement lay def émission boo amee événement rek nga koy gis boo amee nag il a xam que ne nag fii musique bi toll léegi fii la. dafa jubal fa mooy mais kon da ngay ñëw ba tey ci Wally Seck ñu ci bari tey dañ koy reproché loolu. te mhm. Wally image dafa la tey. Mhm. Wally foo tourné dans réseaux sociaux da nga koy gis te nee nga Pape Diouf. Ah, ci li nga xamante ni moo ko may lenn li mooy dafa raar. que tey tey loolu yàqu du xaw a yàqal Wally un peu tey tey li Sénégalais yi di wax tey ñu mun ko xam ci lu bare bëri image am ñu la teg ci réseaux sociaux yi. waaw mais Wally tamit boo xoolee image am latewul de Wally problème bi mooy que même bu image late latee ay fansam la du Wally de. waaw ah, parce que du c'est pas boo demee kër Wally léegi gis ko comprendre nga euh, juste que la ay fansam la quoi ay fansam ñoo bëgg Wally ba. waale mun na jouer sa benn soir ay ati at ñoom ñu ñu indiwaat ko waale mun na génn benn sop dem fa nii benn sop parce que tamit il faut ñu comprendre que ne dund Sénégal musique dafa metti dafa metti mooy que ñun nit ñi dundee suñu biir noonu la artiste di dundee seen biir te par exemple da gis benn Salim Jazz Pro du bëgg a génn Salim ñëw këram ne ko dañ génn ànd ak moom dem ñu gis Jazz Pro léegi waale noonu lay dunde même chose tey Jazz day waale day toog këram benn bigit soxla ko pour mu génn dem bu fa demee nit ñi am fa image am suba bu xëyaatee am na feneen fu mu war a dem tay wal limu am senegal tay ci artiste yi yakar naa ne moom rek kom comprendre nga euh, moy ko tay waali mom ñepp ko soxla pour mu ñew sen place lool mom yalla dox ko may comprendre nga waali ñepp ko soxla mu ñew sen place waali ku tijji ben fuy jaay ngooñ sax dang koy tuddee waali wala da ngay bëgg waali ñew fa lool nak mayu yalla la. Ah, mais nga waxewuma fofu waaw da nga déggu lima wax. waaw waali day nekk ci garage sax di wacc ni hmm. filmé ko mu koy gis. waaw te ko daan réseaux sociaux bu nekk kërëm di play. Hmm. ñu filmé dugal ko. Hmm. que du loolu tey manque de professionnalisme tey moom moo am foofu. waaw loolu loolu nag pour man du ci dara. Euh, manque de professionnalisme mu ngi commencé ci comme tey nga def la nga xamante nit ñi waruñ koo gis nit ñi gis ko xëy na foofu manque professionnalisme fa lay nekk mais tey artiste bi yoon la ñu sinap ko wane ko. comme ni ñuy defar ñoom artistes internationaux yi boo leen booy dugg seen plateforme da naan ñooñ ñoo gën a late. ñooñ dañ di gis tout le temps mais juste ko rek bu leen parfois bu ñuy génne nit ki na doon ci moment yi nga xamante ne day dem ci programme ak moment yi nga xamante ne mu ngi def lu yitteel nit ñi c'est ne nit ki tamit dafa am benn benn dund ba nga xamante ne dundam la euh, waruñoo filmer nit ki tout le temps ba lépp ci biir kër nit ki ñëpp xam ko. mooy euh, bi nga xam te fa la Pape Diouf signé. waaw Blif voilà dégg nañ euh, mm. a signé. waaw waaw waaw waaw Wally jotoon na fa dem ba partager image yeeg yëpp quoi ba fi mooy moment bi mu taxawee ci. ci dis door yi du xool foofu la woon quoi mais juste ko rek lépp li ma ciy wax rek mooy que euh, kii fa njëkk a dem ki fa dem yooyu yëpp garaaw problème bi mooy que sont des artistes sénégalais yu nekk biir Sénégal gis que ne ñoom musique bi ñuy def doyatul Sénégal kese war na war àdduna yoon lañu dem fa parce que label bi tamit c'est pas ne da ngay ñëw foofu ñu naan la waalee fi njëkk a ñëw wala pap Diouf fi njëkk a ñëw loolu suñu xel la ñun sénégalais ak yenn fans yi mais problème bi mooy que suba xaar fa Alioune mbay Nder suba xaar fa keneen suba xaar fa keneen quoi ah noonu la demee. jàpp nga di tey booloo bi ñu booloo. ñu wàllu say tuuti bi ñu def ak yenn artistes yi tey. loolu tey a jëmmal musique sénégalais tey moom sa waay amatul lu ñuy wax ci moom ci ci niveau di featuring yi muy def ku soxorul moom xam ne Wally wax dëgg yàlla pas mu def bu ko yeneen artistes yi defee donte am na artistes yi nag yu bëri yu def comprendre nga euh, tey booy xool ci carrière Pape Diouf am na featuring yu mu def booy xool ci carrière Youssou Ndour ci carrière keneen ak keneen def nañ mais moment bi Wally toll moment bi dafa tombé ak dafa tombeek influence dafa tombeek àdduna bi xëppi du xool parce que sénégalais ay jamono dañ doon nelaw te lu ne xew na fi mais maman yii nag dafa tombeek xëppi di xool loo def tey duñ ko fàtte léegi nag Mame Waly foo la tombeel moo tax lu mu def tës lay def ci àdduna bi nit ñi bàyyi ko xel comprendre nga mais li muy def ni moom fi mu teg loxoom bu ko jaay fekk see musique Afrique dina am doole te musique musique Afrique day am doole te musique Sénégal da ciy bokk. parce que tey fi mu ne nii yow mosoo dégg benn star bu dem Nigéria safe fa. tey ci seen liggéey moo leen ko may tey artiste bi gën a mag tey boo koy wax da naan ay Berna Boy ngay wax comprendre nga léegi nag l'essentiel bi mooy que ñun euh, li ñuy def Sénégal mhm. mais kañ la mhm. ah, mhm. actuellement au niveau du Sénégal mais tey li ñu gën a xaar tey mooy Sidy Diop waali wala Pape Diouf euh, waali Seck exclusivité ngay am fi dégg na la nga xamante bu génné àdduna tukki dégg na ponkal ya nga xamante bu génné ñi doon wax yépp nañ tecc seen gémmiñ te ñi ñi doon wax ñëpp ponkal yoy ba déku nañ ci suuf def seen fitri génn taxaw di xol di leen seetaan ñom ñi ngi wax rek du tegal wax ji damay bàyyi non mu sedd parce que moko ma du baax mais dégg na sama nopp ñu tegal ma sama nopp ma dégg la nga xamante bu génné bi day te ah ay ponkal yi musique Sénégal la papa téye na doom loxoom def moom featuring ah. mag téye na rakk loxoom defak moom featuring ba pare lu doy waar la te exclusivité fii la amee fii laa ko waxee. kan mooy papa baax na loolu kay nañ ci ñëw après <laughs> lu doy waar maal ko wax. kan moo xam nga ñun tey ay ay chroniqueur ah. lan ay melomaan lan tey ndaanaan yu bëri buñ génnee dañuy envoyé nañu ñu déglu wala ñu woo nañu déglu dégg naa la nga xamante ne daal dans quelque temps ngeen ko dégg. laa année bi jeex balaa année bee jeex moom di ngeen dégg la nga xamante ne wala ci nouvelle année bu bes bi ñu ne leen ko tell mu dal seen kaw waaw benen affaire bu jam solo walé gis nga kilipi clip yu bari yu muy tourner nga xamantene mu ngi denc walisam rek di tourner di teg kon tay dalay leer ne tay musique bi tay ah fin koy sentu dina don benen affaire waaw non la démé quoi waaw. kon donc disque d'or bi tay mën nañ ko mën nañ ko xaaral Sénégal tay wa disque d'or Sénégal mom dina ñew mom parce que sunu artiste yi euh, ñu bari bo nelawon yaangi yew bo boo yaangi xépé mooy jeune artistes yi mais l'essentiel bi mooy ko ñoom foofu lañ jëm maanaam gars yi comme tey parfois dañuy coowal suñu artistes yi naan dañoo war a def ni dañoo war a def ni xanaa xamuloo suñu artistes yi ñoo gën a bëgg ñoo gën a bëgg gars yi li ñu bëgg sunu artistes yi bu buñ sañoon tey li fi suñu tur def gars yi def ko gars ñu ngi def lu nekk mais l'essentiel bi mooy affaire bi moo yombul ba pare disque d'or c'est pas ni koy tuddee la disque d'or chaque instant dañuy changer tay da ngay ñëw ñu ne la 15 millions de stream boko amé amee suba nga ñëw ñu la exemplaires tay walé da lay lér na album international bi mu génnee bi ñuy jaay ak légui ëpp na 50000 exemplaires ah dafa am yenen affaire yi nga xamante dafa am ci biir ah nombre de stream yi tay ben single rek mën nga ko génné am ci disque d'or sans départ ci nombre de stream yi parce que comprendre nga euh, li li ñaanal rek moy que yalla def tay seen biddiw mengo disque d'or wala nekkoog disque ñu indi ko fi quoi rek lay ñaan yalla quoi. alors lan ngay tàggatoo ak mbokk internet yi gannaaw ba ñu nangulee li nga xam ci mo interview fi ci almadi tek lan moy do sama mot de la fin. waaw sama mot de la fin mooy que ñu ngi dëgmal benn bëss ba nga xamantene vraiment euh, euh muy le 7 décembre li ñaanal Wally yalla défar ko ci ndam parce que Wally bu amé ndam rek mhm. Sénégal amna ndam quoi. Mhm. comprendre nga juste que dañuy ñaan tay Wally dem ba tigat Bercy dem ba tigat Arena mo ëpp Bercy. mooy mooy quarante mille places ñu dem ba wàllu jël Stade de France Pape Diouf même chose mu ngi mu ngi mu ngi ci ay tournée mu ngi Suède comprendre nga war a dem feneen ak feneen yooyu la ñuy ñaanal suñu artistes yi Momo Dieng ah xale la te Momo Dieng sant bi nii war na gën a mun a sàppali comprendre nga mu ngi jëm mu ngi jëm mu ngi jëm arena comprendre nga euh, mille place mu war koo def ci première artiste ba nga xamante ne xale la dem foofu noonu à part Youssou Ndour mi fa dem di suñu papa foofu ñu am fa seen mbokk la woon Diaz Pro leen bëggee leen siyaar seen mbokk la Diaz Pro yesaay ne waram toog ñu baaw